ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa ta'ala noo ngi julli ci sang bu tedd bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ali imran tv dellusiwaat nañ ak suñuy mbokk ñu fas yéene toftal suñu buntu bu weesu tey beneen buntu bi nga xamante ne yonent bi alayhi afdalu salaatu wa aska taslima moo ñu ko baaxee ñu fas ne ko waxtaan ak mbokk yi ngir ñu mën koo jikkowu ci suñu dund bi bés penc la suñu yonent bi wax ni képp ku jikkowu la nga xamante ne mooy waxtaan bi ñuy waxtaanee nii bés penc yàlla dina la yombal yoonu arjana ñuy bokk di nuyu mboolem membre Ali Imran TV ak ñépp ñu nga xamante ni ñu ngi koy safoo ci biir réew mi wala ci bitim réew fu ngeen mun munti nekk ñu di leen ñaanal yan na leen yàlla defal jàmm waaye yal na leen yàlla defal yërmandeem ba bawoo ko fa moom ak barkeem ci seen am-am ak ci seen nekkin fu ngeen munti nekk mbokk yi tey hadis bañ leen andil mooy. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم majtama'anna fi mri'in illa daxala aljanna rawahu muslim allahu akbar macha allah mbokk yow mi ànd ak Ali Imran TV di wéttalanteeg ñun ci suñu émission bi nga xamante ne mooy at-tadhkir nañ leen bokk déglu xadiis yonent bi salawaatu rabbi wa salaamuhu bés dafa nekkoon ak sahaaba mi ridwanullahi alayhim ajmain ñu toog ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am laaj yamu doon laaj jikko nobles yi nga xamante ni foo ko takk weesu na ko ci dundu doomu aadama day wone sa nobles waaye jikko jooju boo ko làmboo dangay ngay faggul sa bopp da faggul sa bopp yiw tiyaabo nga épargnel sa bopp yiw tiyaabo foo xamante ni keroog lu dul yiw yiw a ko gën lu dul tiyaabo tiyaabo ko gën nañu bokk déglu la yonent bi doon laaj am jëmm ju sel ba toogoon ci jotaay boobee mu doon premier xalifa njëlbeenu xalifa ci xulafa urrachidin di abubakar siddiq radiyallahu taala anhu wa ardah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ñoom ci jotaay ju sellee jotaay ju kawe nii jotaay bu am dayo ju kawe nii yonent bi daal di laaj lan la laaj dañ leen bokk déglu la yonent bi laaj def ne man asbaha minkum al yawma saaiman ana kan mooy ki xëy tey woor woor bi nga xamante ne ruknun min arkaanil islam dafa bokk ci kenu ponk islam juróomi daf ci bokk woor daf fu daf ci bokk woor weeri koor keroog yonent bi dafa laajte ana kan moo def jaamu yàlla bi ñu naan sawm ana moo xëy tey mu di aji woor abubakar siddiq yëkkati loxoom ne ana man tey damaa woor allahu akbar yonent bi laajaat ne faman tabia minkum al yawma janazatan ana kan moo gunjee néew dem jébbal ko boromam abubakar daal di yëkkati loxoom radiyallahu anhu ne ana man tey def naa jëf jooje topp naa jullit bu génn àddina dem jébbal ko boromam ak tiyaabo ya ca nekk la ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar yonent bi ne fa man at'ama minkumul yawma miskinan ana kan moo joxe ñam tey jëmmale ko miskin ja ko soxla ana kan moo layal miskin tey ñam ana kan moo joxe ñam miskin nga xamante ne geste boobu nu mu amee dayo ci islaam ba yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala di ko melale ci alquranul karim ci suratul insaan ne wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama yutimukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura innama nutimukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura borom bi ne dafa am ci ñi nga xamante ne dañuy layal miskin te ñam buñ koy jox day fekk mu doon lañu gën a bëgg ñam yi ñuy jox miskin ba day fekk ñu gën koo bëgg gën koo soxla waaye comme miskin bi soxla na ko yittewu na ko dañ ko kay jox dañuy jël seen ñam yi ñu gën a soxla di ko jëmmale ci jirim layal jirim ni mu amee solo nu mu amee dayoo ci islaam ba borom bi subhaanahu wa taala ko ci bërëb yu fasante ko ci téere bi yàlla nee na ñooñu dañuy dëkkee loolee du joxe ñam miskin du joxe ñam jirim waaye du yem ci joxe ñam ñaar yooyu de ñetteel baa ngi nii Cheikh Abdallah mooy ban waa asira dëkkandoor bi wa asira xame bi mbokk bi dañuy yëkk-yëkk ju baax jikk ju neex jëmali ko ci mbokk wala jëmali ko ci dëkkandoo allahu akbar la tax ñu di ko def retour bi xaaruñu ci merci retour bi xaaruñu ci sukran retour bi xaaruñu ci thanks retour bi xaaruñu ci jërëjëf la ñuy xaar ci retour bi mooy innama nutimukum li wajhillah buñ koy joxee ñam yooyee ñuy jox miskin ba ñam yooyu ñuy jox jirim ba ñam yooyu ñuy jox dëkkandoor ba walla mbokk ba duñ ci xaar benn retour bi nga xamante ne dañuy xaar jërëjëf walla merci walla thanks walla leneen déedéet la xaaruñu ci dara li tax ñu di ko def mooy laa nuridu minkum jazaan wala shukuran namuñu ci ñoom ñu di ñu sant wala ñu di ñu delloo njukkal la tax ñu di ko def li wajhillah ngir jëmm yàlla bi rek a tax ñu di ko def keroog yonent bi dafa laaj man atama minkumul yawma miskinan anakan moo joxe ñam jëmale ko ci miskin abubakar siddiq radiallahu anhu daal di joxe yëkkati loxoom ne man tey joxe naa ñam jëmale ko ci miskin allahu akbar cheikh abdallah ñeneenteelu laaj bi ñeneenteelu laaj bi mooy lan yonent bi daf ne man aada minkumul yowma maridan anakan moo dem nemmeeku aji feebar tey moo xam mbokk ju feebar la wala xame bu feebar walla dikkando bu feebar moo xam moo xam moo waaye nga jël sa temps yëkkati sa waxtu dox dem seeti ki feebar ñaanal ko yàlla may ko courage rawatina nakala ko cheikh bi di waxtaane cheikhuna alfadil oustaz suna alhabib oustaz Alioune Sall yan na ko yàlla doole sàmm wéral ko ne boo demee seeti ki feebar waxtaan ak moom ñaanal ko yàlla lamb sa poos am li nga génnee jox mu yokk ko ci njëgu ordonnance walla mu yokk ko ci la mu yittewu ba léegi yàqu ci dara jikko ju noobul yii yonent bi laaj saxaabi bu mag di yëkkati loxoom ne man tey def naa yii mu doon abubakarin siddiq radiallahu an wa ardah nee na ana abubakar nee na man tey def naa loolee fa qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam majtama'anna fi mri'in melokaan yii du daje si kenn illa daxala aljanna lu dul yàlla dina ko dugal arjanna rawahu muslim muslim moo solo hadis mbokk yow mi may déglu ci Ali Imran TV di ànd ak ñun ci émission bi nga xamante ne mooy at-tadhkir nañu bokk dundu hadis bi nañu bokk dundu hadis bi jikko ju noobul ju mel nii doo ko am ci fenn fudut ci suñu diine islaam waaye faggu yiw ju toll nii jarut nga dund lu bëri jarut sa at yokku at bu bari nga am yiw ju toll nii nit dund na fi téeméeri at nit dund na fi fanweeri at wala ñaar fukki at ak juróom mu am fa yàlla yiw bi nga xamante ni ku dund téeméeri at amu ko di ko ko yóbbee nangoo gëstu ci diineem nangoo déglu fàttali bay joge ko ci alquran ak njàngale yonent bi ndax loolu la borom bi subhaanahu wa taala baaxee yonent bi ci alquranul karim mu ne ko fa dakkir in nafaati dikra sa yadakkaru man yaxsha del fàttali yow yonent bi del fàttali yow imaam bi del fàttali yow borom xam-xam bi yow mi ma yenkeewal xam-xam del fàttali ndax lan inna faati dikra fàttali de dafa am njariñ fàttali njariñ kese la lambo fàttali bénéfice dong la lambo yàlla ne ko sa yadakkaru man yaxsha nit a ngi nii dina fàttaleku ki lamboo ragal yàlla ki bàyyi xel yàlla ci léppam di nangoo fàttaleku yàlla nee na kooku noonu dina am bénéfice bu toll nii njëriñ bu muy am ci ko kon yow mi ànd ñun ci Ali Imran TV ci émission bi nga xamante ne mooy at tazkir ngalla waaye nañu bokk di fàttalante mbokk yi ci lépp li nga xamante ne ayatul quraniya la ñu bokk di fàttalante mbokk yi ci lépp li nga xamante ne xadiisu yonent bi la sallallahu alayhi wa kon tey lii bokk na ci lañ leen andiloon ñu ñaan yàlla suñu boroom subhanahu wa ta'ala hadis bi la mu lamboo ci maana yan ñu ko yàlla kattanal yan ñu ko yàlla yombalal yàlla yàlla may ñu dégg topp ñuy ñaanal suñu boroom kër gi di Cheikhna al Fadil oustaz Alioune Sall yan na ko yàlla wattu doole ko sàmm moom mboolem njiitu daara ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ñuy ñaan yàlla yàlla mottal yéene suñu ñaari technicien di Abdallahi Ba ak euh, Pape Doudou ak mboolem asatija yi fi yëkkati kaddu mboolem xeetu jàngale yi fi jaar yàlla ñu yàlla may dégg ak topp mu nekk xasanaat fil mizan may nuyu nag samay mbokk bopp yu nekk ci diaspora bi fu ngeen munti nekk moo xam Italie Allemagne Amérique moo xam fu ñu munti nekk fii jamii il anha il di leen di nuyu di leen wax ne fa jazakumullahu xayran ba léegi ñuy nuyu suñu mbokk bopp ki nga xamante ne mu ngi si suñu village bi di Bunkiling di suñu pap de alhaaji Sankun Daraame maa ngi koy nuyu di ko ziar mook mboolem waa Bunkiling ba léegi di leen wax ne barakallahu lana wa lakum fi l qur'anil wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu